salaamaaleykum téléspectateur u Leral TV ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen biir émission leeral santé tey nag leeral santé comme ni koy faral di defee ñu ngi ñëw indil euh, leen thème boo xamante ni dafa sonal sénégalais ba pare nekk thème boo xam ne sujet tabu la. ci sujet tabu boobu ci lañ bëgg a wax ak yéen moom mooy infertilité masculine puisque nit ñi infertilité côté jigéen ñi kese la ñu faral di dégg mais bi yoon dañu xool góor ñi nga xamante ni euh, dañoo am jafe-jafe am doom moom lañ bëgg a laaj docteur mu expliquer ñu ci lan la ci xam et puis lan moo koy indi ndax mën nañ ko faj docteur est-ce que mën nañ xam lan mooy infertilité masculine bien infertilité masculine mooy jafe-jafe am doom si góor bi. wala voilà carrément jafe-jafe si mañu bi. Mhm. mañu bi mooy si tubaab wax tubaab bi sperme. Mhm. léegi bala ñu avancer si yeneen question yi dama mhm. bëgg d'abord wax ñu waxtaan si beneen jafe. mooy li ñu waxee infertilité du couple. mooy infertilité infertilité. si ñaari ñaari exactement. pourquoi. xam nga boo bëgg am doom. c' est à deux c' est jamais à un. dëgg la d' accord. léegi ñi ci yu bare bu ñu takk maanaam góor bi bu tàkk jigéen bi. au bout de un an. mu commencé wax jigéen demal seet docteur bi mus ba léegi amuñu doom demal seet est ce que problème lu si yow. normalement waruñu aborder question bi de cette façon. pourquoi. parce que dañ étude bi. dafa montré que presque 20 pour cent yi causes yi góor la 20 pour cent jigéen 40 pour cent ñoom ñaar nii moo tax yoon bi mooy ñoom ñaar ñu dem ànd si docteur bi pour faj. léegi yeneen cent yi pour cent kenn xamul. kenn xamul lan la cause bi. d'accord mhm. léegi bala ñu waxtaan tamit est pour ñu mën a xam est-ce que kii dafa am infertilité wala déedéet. Mhm. dañu war a toog benn kër. Mhm. seyaat. régulièrement ak mm-hmm. troisième chose bi mm-hmm. dañu war a tamit ni euh, ñu ko waxee encore xaar benn at voilà donc at bi motul mm-hmm. waruñu xalaat non kii man oma doom wala li wala question yi voilà euh, docteur lan mooy causer infertilité masculine cause yu bari bari ñoo nekk ci dëkk bi bu ma ko war a cité yépp duñu duñu dinañ fanaan fii ah, ci quelque. voilà je vais donner les plus importantes. Mm-hmm. d'accord mm-hmm. la première chose mooy lu ñu waxee IST. infection sexuellement transmissible. Mm-hmm. d'accord maanaam lu ñu waxee urétrite. Euh, paa yi wala yu mag yi dañu ko xamee sous le nom de chaude-pisse. chaude-pisse voilà. c'est la première chose. deuxième chose. dañu Ah, dafa am beneen bi daf dañu ko waxee torsion du testicule mooy xuur yi boo nekk boo nekk xale xuur bi day tourné d'accord xale bi mooy genre malformation. non ñëw ak seddaay bi wala euh, ak traumatisme bi. d'accord d'accord mhm. ko dindi. bii mhm. mun na ko jox. Mhm. bi. Euh, mooy. Euh, lu ñu waxee maanaam ku liggéey bayukat yi bayukat yi lu ñu liggéey ak pesticides yi. Mm-hmm. ak euh, ni ñu ko waxee encore ak. Euh, voilà engrais ak lii yëpp mun na ko joxe. d'accord quatrième chose yi. Mm-hmm. Euh, ku liggéey ak tàngoor bi tàngaay bi. Mm-hmm. muy comme boulanger yi. côté baykat yi. engrais man dama bëgg a xam ci naka la ñu amee infertilité. engrais yi ak seen engrais seen spermicide yi. naka la leen di def ñu ñu ñu ñu infertile. engrais yi dañu am produit toxique lu ñu wax genre ay mhm. yi mun nañu maanaam xam nga engrais yi généralement. Mhm. des fois c' est c' un liquide dañu ko pulvériser. Mhm, boo ko pulvériser des mun nga ko xeeñ tamit. Mm, xam nga engrais bi xam nga engrais bi. rey ay mboot yi. wala rëy insectes yi wala herbes yi yu bañ a baax insectes yi mhm. yu sew yi mhm. dañu dund mhm. boo ko rëyee c'est que mun na la rëy tamit indi c'est pas de la même façon mais mun na yàqal affaire si yow et que c'est prouvé scientifiquement que produit dañu indi ay jafe-jafe am doom boulanger yi aussi boulanger c'est différent dam la expliqué woon que varicocèle bi mooy lan lu muy joxe day yokk température yi si xuur bi mhm. d' accord mhm. ak augmentation de température bi si xuur bi mhm. mooy bàyyi xuur yi wàññi taay bi rëy sperme matozoïde yi c' est la même façon sauf que c' indirect maanaam doo am varicocèle mais tàngoor bi mooy. docteur mbaa mbaa boulanger yu bëri duñu daw bàyyi liggéey bi <laughs> yaakaar ni mën nañ cee jëlee <laughs> infertilité ah en tout cas. Ouais. tous ceux qui travaillent au niveau de la mhm. chaleur dañu war a moytu. moytu moytu bu baax d' accord. Mhm. damay bàyyi les deux plus importantes pour la fin. Mhm. mooy cryptorchidie. mooy la cryptorchidie mooy boy dundee xuur ba ñu nekk palaasam. nii moo tax est très important. yaay bi mu vérifier tout le temps de temps en temps. est ce que xuuru xale mi ngi palaasam wala déedéet. et la dernière qui la plus connue mooy lu ñu waxee varicocèle ci noonu nag docteur lañ bëgg a xam lan mooy cause bi ñu gën a xam ci infertilité masculine fii ci sunu réew waaw je viens de l'aborder d'ailleurs mooy varicocèle bi lan mooy varicocèle d'accord varicocèle mooy euh, da nga am jafe-jafe si sidditu xuur d'accord d'accord français si français bi nañu ko waxee dilatation du plexus euh, du plexus des veines du plexus pompiniforme. Mhm. d' accord muy xuuru euh, sidditu xuur yi. Mhm. ñoo am jafe-jafe. Mhm. nit yi jigéen ñu bu bëri dañu ko xamee sous le de varice. varice d' accord jigéen ñu ëmb wala yeneen ñi dañu commencé am varice yi tànk yi. d' accord genre réew le même euh, genre. réew voilà. d' mais c' le même principe mais day ñëw si góor bi day laal xuur bi. d' accord léegi varicocèle lu muy def. day bàyyi deret wàcc xuur bi ba ñu yegaat lu muy def yokkaat tàngoor bi tàngaay bi mooy tàngoor xuur bi et qu'est-ce que ça va entraîner wàññi dimension testicule yi d'accord rey spermatozoïde d'accord mhm. voilà euh, est-ce que est-ce que réellement am na ay signes en fait. yan signe par exemple la nit ki di am. Hmm. pour mu xam ne kat man mii signes yi su ma ko amee infertilité lay wund. man wala yow nuñ ko xamee. maanaam nit yi mënuñ ko xamee. d'accord c'est pas possible. léegi naka lañ ko mën a xamee à moins d'avoir. Mhm. Euh, comme lu ma waxtaanoon si causes yi. nga am une de ces causes la. Mhm. mais même boo amee causes yi. Mhm. da ngay suspecter mais mënu ko confirmer. d'accord possibilité nga confirmer ko. mooy nga dem ci urologue. Mhm. d'accord booy demee urologue bi. Mhm. urologue mu ñëw seet la. Mhm. daf la daf la war a examiner ba pare. mu wax la lan mooy problème bi. d'accord d'accord dafay ñëw examiner la d'abord xuur yi. seet est-ce que amoo varicocèle wala est-ce que xuur yi tuutiwuñu. wala affaire comme yi. est-ce que obligatoirement ci xool signe yooyu dafa war a def spermogramme. déjà. bu mu ñëwee ba pare. dañ ko war a examiner def interrogatoire mooy ñu laaj ko. sa fait ñaata at wala ñaata weer yaa ngi ak sa jabar. bu dafa am nit yu bare. bu ñu toogee ñaari weer wala ñetti weer. ñu ñëw consultation donc. dañu war a xaar au moins benn at. bala ñu xalaat ci affaire yi. déjà. donc léegi bu ñu ñëwee. Mm-hmm. si ça fait plus de un an. Mm-hmm. musuñu am doom. Mm-hmm. dañu laaj jigéen bi dem seet gynécologue. ak góor bi ñëw seet urologue. léegi man wala urologue bi bu bu ñëwee. bu ko examiner ba pare. d'accord. bu mu ñëwee ñu prescrire ko spermogramme. ou bien d'autres examens comme. échographie bi d'accord voilà beneen bilan sanguin complémentaire. ci loolu lañ lay la ñu dem laaj la docteur. Hmm. Euh, naka lañ koy diagnostiquer infertilité bi nuñ koy diagnostiquer. daa oyof c'est très simple. góor bi bu ñëwee. Hmm. ñu laaj ko spermogramme. Hmm, d'accord d'accord buy defee spermogramme bi ba pare. fii la ñu mun a xam est-ce que góor bi mun na am doom wala déedéet. wala dina am jafe-jafe. d' accord parce que dafa am différents types de d' infertilité. mun na am manju mu bañ am doole. Mhm. comme mun na am mu bañ am complètement manju mooy lu ñuy mhm. waxee azoospermie. d' léegi léegi par exemple pour bi nga xam ne amul doole. waaw est ce mën ngeen def de telle sorte que manioc ngeen booster ko manioc bi am doole. ça dépend. ça dépend. ça dépend de la cause. Mm -hmm. ça dépend de beaucoup de choses. maanaam bu amee varicocèle. Mhm. normalement ça dépend de quel grade bu amee grade bu métti. Mhm. normalement dañu ko war pour intervention. d'accord d'accord bu bañ am. Mhm. Euh, ñu ko waxee encore varicocèle wala yeneen affaire on essaye de donner un traitement pendant trois mois si le traitement ne marche pas dans ce cas-là on recherche une autre solution. docteur ci loolu lañ bëgg a xam liñ fi expliqué yëpp dafay niroog euh, examen luy xaw a yàgg. ci loolu est-ce que examen yi réellement dafa dafa gudd te bu fekkente ne gudd na euh, environ ñaata temps lay jël. d'accord spermogramme généralement urologue bi. Mhm. du ñu ko yónni yónni. si mhm. laboratoire yi euh, sur chez n'importe quel laboratoire. d'accord. Mhm. parce que spermogramme bi il faut qu'on ait un bon spermogramme mm -hmm. d'accord généralement on envoie dans deux ou trois laboratoires mhm. d'accord et ça peut jusqu'à un mois mun na jël boobu benn weer bala nga mun a am rendez-vous rendez-vous waaw pour jël rendez-vous rek jël rendez-vous kese léegi boo ko defee mhm. en deux trois jours normalement résultat di nga ko amee d'accord mais comme lu ma la waxoon. Mhm. du spermogramme kese la ñu def. Mhm. dafa am échographie yu ñu wax échodoppler des bourses. Mhm. ñu seet est-ce que sidit yi amuñu problème. wala ñu seet tayu xóor yi. voilà léegi échographie c'est devenu banal mu nga ko defee foo bëggee. et ça ça peut prendre deux trois jours. deux trois jours euh, Sénégal est-ce que euh, euh, c'est difficile ñu am euh, don de sperme. Sénégal. dafa am ñaari cas. Mhm. d'accord don de sperme maanaam man. Mhm. dama am sama jabar. Mhm. dama am jafe-jafe am doom. d'accord mais am na mañu mun na may sama sperme. ma may ko sama jabar. ça ça ne pose pas de problème parce que sa ça sperme la. comme ku mel ni yaa ngi ak sa jabar. mais beneen affaire bi. mooy da jël keneen. nga ñëw nga wax ko may ma sa sperme. dama mhm. bëgg am doom. d'accord déjà éthiquement ak religieusement. Mhm. ça passera pas. Mhm. pourquoi comme ku mel nii góor bi day comme ku mel nii da ngay def zina. D'accord. D'accord mm -hmm. Par rapport à la loi, on n'en parle même pas. Mm -hmm. C'est interdit aussi. C'est interdit ici oui. au Sénégal Oui. D'accord. Le don de sperme. Don de sperme. Voilà. kon yéen du ngeen def recours don de sperme. non don de sperme si c'est par exemple la, le mari qui veut donner à sa femme. Mm -hmm. mais amul problème loolu Sénégal amul mm-hmm. problème. mais bu fekkente ni par exemple yow jigéen yaa ngi see góor. gis nga ni am na problème am doom def nga recours ci keneen pour mu jox la sperme am loolu dañ ko tere Sénégal. c'est interdit waaw ah, kon ñu xamee ko noonu léegi dañu bëgg a xam traitement bi est-ce que traitement bi c'est c'est coûteux. ça dépend de quel traitement. ku mhm. amee varicocèle. Mhm. wala ku laajee juste ñu booster bi. Mhm. Euh, booster ak traitement bi il faut compter à peu près entre quinze mille ak vingt mille francs par mois pendant trois mois. pendant est-ce que am na résultat wala ak soxla opération. ça dépend foo ko war a def est-ce que public wala privé. mun dem trois cent mille. demaat ba six cent cinquante mille. d'accord d'accord mhm. léegi beneen affaire mhm. boo bëgg def ni ñu waxee mhm. troisième solution mooy procréation médicalement assistée c'est-à-dire c'est-à-dire troisième solution ko am doole si mañu bi d'accord solution mooy ñu defaat procréation médicalement assistée c'est-à-dire ñu dem laboratoire jël mañu góor bi mhm. jël nenukaayu jigéen bi mhm. defaat ko fécondation in vitro d'accord en laboratoire ci loolu fécondation in vitro c'est permis au Sénégal c'est permis c'est autorisé mhm. bon en tout cas c'est réalisé dans une seule structure privée la duñu ko def public d'accord et le coût est très cher d'accord comparé au résultat. Mhm. je vous explique. Mhm. varicocèle bi bu ñu ko opéré on a à peu près pour cent de réussite. d'accord mhm. pour ñaata la entre 300 ak cent 000. d'accord alors que PMA bi ça coûte à peu près 4 à chaque fois. ah ci à chaque fois boo amee consultation. non maanaam. boo bëggee am doom. dafa am benn procédure. Mhm. à chaque tentative. Mhm. góor ak jigéen bi dañu war a dafa day jaar à peu près entre trois millions cinq à mhm. dañu war a gànnaayoo loolu daal. voilà bu dee dañu am problème infertilité. exactement très important bu ñu war a def. procréation médicalement assistée. mais attention. résultat yi c'est juste entre dix et de réussite à chaque fois. c'est pas à cent pour cent. il n'y jamais de pour cent. d'accord voilà. léegi yéen est-ce que ça soigne réellement infertilité masculine bi. je vais vous expliquer je vais vous parler d'une anecdote mhm. Mhm. dafa amoon benn góor. Mhm. ñëw ak jabaram benn hôpital. ñu ñëw defaat ko spermogramme. ñu gis dafa am ñu ñu waxee. azospermie. mooy amul mooy ba ñu am sperme complètement. d'accord d'accord. Mhm. amoon. docteur nga baal euh, moom mooy nit ko amul sperme donc ku amul sperme est-ce que kooku dina mën a éjaculer normal. ça n'a rien à voir le sperme. Mhm. en ku bañ am. spermatozoïde spermatozoïde bokku si. d'accord d'accord dafa am. dara lu bari si si biiram. d'accord d'accord d'accord. mais ah. spermatozoïdes yi moom mooy nen yi nga xamante ni mooy tax. Euh, exactement ku jigéen ki mën a am doom. exactement d'accord. donc. Mhm. la personne la mhm. dafa amoon xaalis. Mhm. demaat France. dem ba France. def ko ni ñu waxee biopsie testiculaire. dem seet est-ce que foofu dafa am. spermatozoïde wala déedéet. gisuñu foofu spermatozoïde nga mi ñëwaat fii Sénégal mhm. mu toog ak jabaram cinq ans six ans dix ans mu bañ am doom mhm. au bout de dix ans mhm. jabaram ëmb hmm? au bout de dix ans ku gisee li lu muy xalaat bu xelam gàtte ah exactement c'est vrai ou c'est pas vrai dafa accuser jabaram affaire bi. d'accord d'accord. Mm-hmm. dem. Mm-hmm. Euh, répudier ko si si si papam ak yaayam. Mm-hmm. jigéen bi jooy suba ba ngoon. mu xaar jusqu'à ce que xale bi mu dund. dem def lan. test ADN mu nekk xale. mu nekk doomam. léegi nan lañ mujjee. y a beaucoup de causes on ne comprend pas. c'est vrai que ñun ay docteur lañu. Mhm. dafa am yàlla tamit loo xamante ni part divine la. voilà d'accord euh, ci loolu laa lay laajee sunu dernière question ndax des fois ndax li ngeen def recours ci euh, psychologue. psychologue mhm. généralement. Mhm. bu ñu gisee que amul euh, amul résultat. d'accord au bout avec le traitement avec li yëpp. Mhm. dañuy toog waxtaan ak patient bi. Mhm. d'accord mhm. nit yu bare dañuy dem ci diini bi. d'accord ak nit yu bare. généralement dañu laaj accompagnement. c'est c'est possible que des fois on oriente vers le psychologue. mais nit yu tamit dañu xalaat que bu ñu ko yónnee ci psychologue ku mel nii. moom léegi dafa dof. donc c'est pas très bien accepté. Mm-hmm. voilà. si suñu culture. tàmmuñu di dem di gisi psychologue. exactement. Ah, d' accord ci ci loolu lañu ñu tëjee ban conseil ngay jox góor ñi. bu leen bàyyi seen jabar. Mm-hmm. dem consultation. moom kese ñoom kese. Mm-hmm. da ngeen war ak ñoom. maanaam bu mu la waxee man dama bëgg a dem seet docteur. wax ko man tamit. ci bu ngeen sëyee baal ma ci bu ngeen sëyee un an. te dara xewul. exactement d'accord. sa jabar bu la waxee man dama bëgg a dem seet docteur parce que ba léegi. musuñu am doom. Mhm. bu ko waxee waa demal après ñu seet booy booy demee booy docteur bu la waxee amoo dara après ñu waxtaan ci affaire bi non non. Mhm. da war a ànd moom. walla mhm. carrément moom bu muy demee ci gynécologue. nga dem ci urologue pour nga mun a consulter. nga xam lan muy sa ñi ngi ko waxee encore. lan mooy xew. exactement est-ce que si yow la wala si moom wala si yee ñaar. Mhm. pour ngeen ëpp chance comme lu ma leen wax. Mhm. quarante yi pour cent si yee si yee ñaar. Mhm. maanaam ngeen mën a ëpp chance avec les 40 pour cent la. voilà. docteur kon ñu ngi lay jaajëfal. ah di la remercier. merci téléspectateur leeral Leral TV ñu ngi leen di jox dig daje ci seen beneen numéro Leral santé naan leen ba beneen yoon incha allah merci.